koo xam ne yéen ànd ngeen. ah Idrissa na c'est le candidat du PDS. non non xam nga ku nekk tey di nga jéem a wax loola neex mais bu ñu toppee logique rek. ñoo xam ne yéen a bokk. camp boo xam ne yéen a xeexoon la. Ah waaw yéen a bokk fi ngeen nekk xeexandoo ci ay dossiers yu bare te il a d'excellentes relations aussi avec Ablaye Wade évidemment ba nga xam ne tey bi ñuy def la le pôle wàllu la moom la ñu jiital si wàllu bi mu nekk ci ak Lamine Thiam en fait c'est ce qui s'est passé et que tey ñoom ñaar ils l'ont moom moo dirigé woon cette coalition ba cette coalition tey dem ba am lu mu war a am donc euh, c'est vrai que tey le PDS am ak ak tekki di ñu nekk benn euh, relation boo xam ne tey su PDS demul élection normalement war a mën a jàppale Mamadou Lamine Diallo par rapport a cela c'est tout moom wax na. bu baax vous pensez support du PDS peut, déterminant. non en fait yàlla rek xam luy déterminant mais je veux dire que tey vu le contexte wax ngeen ko sànq yëpp si débat bi li ñu wóor te wóor mooy fu mu ne nii ñii di wër di yooxu damay am 60 pour cent 80 pour cent mënul nekk c'est-à-dire à l'heure bi dafa dispersé tey boo jëlee parti au pouvoir bi ñuy wax nii d'abord sénégalais diñu leen meree ndax nit ñi xëyu ñu liggéey ñu dund gi metti na donc ça veut dire que ñooñu sénégalais yi xalaatuñu naan diñu leen di voter ah deuxième chose aussi si seen biir mais ñaata nit dafa jóge Aly Ngouille dafa am wàllam ci biir euh, Boun Abdallah dafa am wàllam Mame Boye Diao fa nekkoon mais il faut pas oublier ça et ñooñu ñëpp dañu am ay fief léegi seeni fief ñooñu tey dafay génn ci benn bok yaakaar boobu ñuy wax donc doole bi ñu amoon amatuñ ko loolu tamit dafa nekk donc ça veut dire que élection yi dafay nar a tas donc y aura des voix qui viennent de partout et sur voter te duñu bokk caravane nekkuñu ci mbedd bi di tàccu ñu ngi seen kër dimanche la ñuy génn dem vote ñibbi ñooñu moo gën a grave encore et ñooñu c'est la majorité pour man ñoo xam ne ils vont la différence. mais ñoo mais yaa ngi wax am na ñoo xam ne am nañu fief moom Lamine Tall n'a pas de fief. comment ça n'a pas de fief. fan mooy fief moom en fait moo xam ne mooy son fief naturel foofu la bokk Sédhiou la bokk foofu la cosaanoo même bu dee tey dafa juddoo Dakar son père son son neexee ah, son son son son père euh, Ibou Diallo Adama Diallo ñooñu xam gis nañ seen parcours quand même par rapport à tout cela mais foofu mooy fiefam loolu laa bëgg a wax il a il a son fief là euh, donc c'est très important yi nga xam ne tam ñu xam ko te Mamadou Diam Diallo il est national parce que il gère un parti quand même national et Mamadou Lamine Diallo est implanté partout c'est-à-dire que tey c'est-à-dire que waa waa Benno yi laa wax dama ne ñooñu tey par exemple tey li ñu daan gagné Linguère ndax Aly Ngouille Ndiaye bi leen daan jàppale dama ne Aly Ngouille Ndiaye étant candidat lu gëwuma ne ñoom dinañ mën a am loolu foofu Kolda du yomb ci ñoom parce que Mame Boye Diao lu mu bon bon am na lu mu fa am genre loolu laa wax ma ne ñi fa jóge ci ñoom dem nekkal seen propre candidat buñ ko nañ bu ñu fàtte loolu Idrissa Seck bi bokkoon ci seen coalition génn na dem di defal candidat boppam te kooku tamit. dina dina defanteeg ñoom Thiès donc PDS ils n'ont pas encore fait le choix.